Okay, alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alameen. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ñi ngi amaat daje ak yéen ci suñu téere bi di bulughul maram bul alxaafiz ibnu xajar al asqalaani rahimahullah di téere boo xam ne fukki téere ak juróom benn la ci dajale ñu yegsi woon ci téere bu mujj bi muy kitaabul jaamia yegsi woon it ci ñeenteelu bunt bi baabu tarhib min masawi al axlaq mooy buntu tiital nit ñi ci moytu loo leen ca la nga xam ne mooy jukko yu ñaaw ya ñu jotoon ci jël ay yenn xadis ba yegsi woon tey su dee mool bi ma yor ci xadisu 1524 wa an abi hurayrata radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الغيبة ndax xam ngeen lan mooy jëw mi ngi noonu su ko defee bu dee gis nga ko yow mi yor beneen mool mi ngi noonu mi ngi nekk ci fukkeelu xadis ba ak juróom-ñaar ci bunt boobee mooy waan abi hurayrata radiallahu anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qaal atadruuna mal ghiba kon incha allah ñu tey it ñoom mooy ñaar fukki fan te la nga xam ne mooy weeru janvier 2019 yu tambeeg fukki fan ak ñett ci la nga xam ne mooy jumaadal ula ci 1440
وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتدرون ما الغيبه قالوا الله ورسوله اعلم قال ذكرك اخاك بما يكره قال افرايت ان كان في اخي ما اقول قال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته وان لم يكن فيه فقد بهته اخرجه مسلم وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه أخرجه مسلم
mbokk ñaari xadis yi yi ñu jàng bi ci jëkk ki koy nettali mooy abi hurayra radiyallahu anhu qaal أن أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أتدرون ما الغيبة وإحنا الصحابة من نحيين خمجن لن موي جو قالوا الله ورسوله أعلم ñu ne ko yàlla ak yonentam dañoo xam loolu qaal zikruka axaaka bi ma yakrah mu ne mooy la ngay tudd ci sa doomu ndey ca la nga xamee ne nii da ko bañ mooy sa mbokk julit ca lam bañ qiila afa raayta in kaana fi axi ma aqul ñu ne ko waaw bu dee de nag gis nga ne li ñuy wax moom mi ngi ci suñ mbokk bi qaal in kaana fihi ma taqul faqad faqad ixtabta su dee ne li ngay wax ma nga ca moom day jëw nga ko wa in lam yakun fihi faqad bahatta bu dee ne la ngay wax nekkul ci moom day dóoral nga ko mi ngi noonu rawahu muslim mbokk xadis bi ci xadis yi gën a tiitlu ci li ñu yàlla tere ci la bokk ca mooy lu jëm ci wàllu jëw rasul sallallahu alayhi wa sallam dafa toog ak sahaaba yi ba mujj mu ne leen ndax xam ngeen luy jëw suñu borom dafa wax ci téeram bu tedd bi ne ngalawaay yéen julit ñi bu leen jëwante wala yaghtab ba'dukum ba'da bu leen jëwante suñu borom melal jëw ñu ngi mel ne tey sa mbokk deewoon ba pare nga ñëw di dagg ci yàpp bi di lekk xam nañ ne am xar sax ak nag su middee yow julit sip nga ñëw di dagg ci yàpp bi di lekk waaye nag sa mbokk bi sës ci yow dee ngay dagg ci yàpp bi di lekk ndax bëgg ngeen ko borom bi daal di tontu ne fa karihtumuhu yéen ñëpp a bañ loolu loolu it moo tax ba lenn ci borom xam-xam yi gis ni ki nga xam ne day jëw doomu aadama bi ca jëw googee tuuba ko yàlla baalu ko ko bokk na lu ko yàlla nattoo yowmal qiyaama mooy daañ ko indil jëm ju mel ne mbokkam ba ne ko nag yaa ko doon jëw léegi lekk ko te loolu mbokk ku ne xam ne ne fitna la boo xam ne fitna bu tar la bokk na góor gu mag gu ma nettali benn lu ma sa xew ci benn ci gendarmerie yi am ci réew mi ala kulli xaal koo xam ne day xuloog jabar ji rek day xuloog wujj bi rek daal di jël la nga xamee ne nii mooy doom ji jël ko rek suub ko ca kaddir gay bax xale xale bi xale bi mi yem foofu bañ ko yó- bañ ko yóbboo ci gendarmerie gendarmerie dañ ne ko yaa ko togg mu naa da nga ko lekk tey dégg nga tiim ko mu nekk ki yuuxam ñu koy dóor ba yàlla dogal moom it génnul gendarmerie ba naam loolu ñu def sunuy loi réew da koo bañ loi yëpp it bañ na ko waaye bañ koy defit ñoom na nga koy defee ci instinctu doomu aadama gis ku nit ku bon nit ku soxor alakuli xaal loolu mooy mbir bi kon bokk jëw loolu la ci yàlla wax rasul sallallahu alayhi wasallam nag toog ak sahaaba yi mu ne ndax xam ngeen luy jëw sahaaba yi ci teggin bi ñu yoraloon yonent bi sallallahu alayhi wasallam lu ci mën a doon dañ daan wax yàlla ak yonentam a xam lu waral loolu mooy suñ tëbee rek tontu lañ ca xam loolee mën na gàttal seen xam-xam te luñ xam-xam-xam yàlla ak yonent bee leen gën a xam kon kay nañ bàyyi yonent yàlla ak yonent bi firil leen loolu te loolu it rawatina ci buntu xam-xam dañu xam ni bokk na borom xam-xam mooy ki xam ne xamul kooku borom xam-xam la ndax moom xam na ne xamul bokk na luy musiba xamoo ba pare jàpp nga xam nga ñu nga noonu ala kulli hal sahaaba yi ne yàlla yonentam ñoo xam rasul sallallahu alayhi wasallam ne mooy nga tudd sa mbokk julit loo xam ne gannaawam su ko déggoon day du ko neex loolu mooy jëw ba nga koy jëw loolee nag ak lu aju na doon ci alalam la ci njabootam la ci lu mu def la ci lu mu waroon a def defu ko ila xëri waaye daal bu déggoon ne yaa ngi wax ci moom du ko neex loolu mooy jëw mbokk ndax kenn ci ñun mas naa mucc ci lii dana jafe lool dana jafe lool en tout cas du imam Sarr de mi ngi noonu te it jàpp naa ne ñun ñëpp ci bokk yam bokk na li ñu yàlla tere la ci gën a jafe mooy jëw ndax lu tax loolu saxaaba yi dañ ne yonente bi alayhi salaam mais bu dee li ñuy wax nag am na yonente bi ne waaw bu dee li ngeen di wax am na muy jëw ngeen ko parce que bu ko yëgoon du ko na du ko neex ndax ay doom duñu toog di jëw seen baay ah kay ndax jëkkër du jëw soxnam ah kay ndax soxna du jëw jëkkëram ah kay ndax ay nit duñu jëwante ay xariti intime ndax duñu jëwante seen biir ah kay ñu ngi leen ci nettali benn histoire boo xam ne oustaz Mor Niang bu nekk fii ci Liberté 6 moo ko doon nettali nee na bi ñuy jàng ci Égypte dañuy def professeurs yi bu ñu génnee nekk récréation waaye lecteur ku fa nekkul la ñu naan mais diw daal commencé di jëwante seen biir mujj ñu ne hey xam ngeen ñun ñëpp ay jàngalekatu diine lañu xam nañ li ci jëw léegi ba pare ñun ñuy léeg-léeg nit nekk fi ñu koy jëw dañuy def fii kees képp koo xam ne tudd na fi ñett ci nekk fi ci misaal dana joxe ci kees gi 1000 francs bañ defee seen kees ñetti fan lañ ca teg sëriñ Thiam jóge fële ne diw daal danaa ko jëw 1000 francs yi nii waaye diw li mu def danaa ko wax ah ah kii nangam nangam ku mel ne ibnul qayim rahimahullah nee na xol xol dafay diis di tilim nee na bokk na saabu bu koy fóot nag mooy jëw léeg-léeg day am lu diis sa xol boo ko waxul rek day doo doo am jàmm ala kulli xaal mbokk loolu natt bu rëy la boo xam ne fa lillahi alhamdu suñu boroom ba mu ñu koy tere ca xujuraat lam ko tëjee mooy wattaqullaha inna allaha tawwabur rahim yàlla dafay sax di nangu tuub loolu it nga góorgóorlu fu la ko yàlla nattoo góorgóorlul jéggulul ko ñaan yàlla jéggulul ko nga doon jëw ñaan yàlla boo mënee wax lu rafet ci moom it nga wax ko amaa nag dem naan ko dama la doon jëw loolu mbokk déedéet kenn du ko def lu dul ci kaa boo xam ne moom yëg na ne da nga ko doon jëw su dee ne xam nga ne yëg na ne yaa ngi ko doon jëw su boobaa demal nga jégglu ko mais bu dee yëgu ko bu ko ko wax waaw ñaanal yàlla jéggal ko ca loo xam ci lu baax nga wax ko mbokk loolu moo aju ci wàllu jëw mu des nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci teg mu ne bu dee ne nag li ngay wax moom amul su boobaa da nga koo dooral ca loolu moom yàlla mën na ci musal jurit yu bari jurit ñu bari moom yàlla mën na leen a musal ci dooral seen mbokkam jurit waaye nag sa dëkkandoo sa collègue de service ki nga bokkal jàkk ki nga bokkal nangam def ay njuumte njuumte yooyu nga di ko wax loolee mbokk ña ca mën a mucc ñu néew lañu su ko defee yàlla moom nga xam ne mooy at tawwabu rahim yàlla nañu yàlla jéggal lépp luñ ci mas a def te it yàlla na bu ñu yàlla nattoo occasion yooyu tax ñu jëwante suñu biir mi ngi noonu allahuma la nag borom xam-xam yi am na luñ ci génnee génne nañ ci juróom benn mbir bokk na ci waa ji nga xam ne dañ koo tooñ ki ñu tooñ moom am na ñëw ci attekat bi ok diw de moo ma def nangam ak nangam ak nangam ndax dañ koo tooñ illa man zulima comme na ko yàlla waxee bokk na ci it la ñuy tuddee taxyirul munkar mooy soppi lu bon mooy benn dëkkandoo ngi nii gis nga ne kat doomam bu jigéen day bàyyi ba mu tëdd mu rocceeku ay minuit di dox ci mbedd mi ak xale yu góor yi nga ne ko ah diw sa njaboot gii day sa mi ngi def loo xam ne xam naa ne yëgoo ko bàyyi ko xel kookee ngay wax ci moom la ngay wax néexu ko mais yow su jubluwaay mooy tere lu bon tant que yéene bi sell ne ka ngay boole yaa ngi ci jublu ngir mu mucc ci lu bon loolu kenn du ko tudde jëw bokk na ci li ñuy tuddee ubbeeku mooy sakku ubbeeku masalan ku mel ni hind ñëw na ci yeneen ci bàyyi satu salaam na ko yaa ngi tere sàcc de waaye suma jëkkër abu sufyan daa naya naya naya nay am na alal ca duñ jox dépense bu doy ndax man su ma jëlee loo xam ne danaa ko mën a dépensé dana dana danaa ci am bakkaar yeneen bi na ko déedéet fexeel jël li yem ci dépense yàgg sa njaboot loolee kon bu dee ne wàllu ubbee islam dana nangu loolu bokk na ci lu ñu tuddee wàllu moytulu nit ñi benn waaye ngi nii nga xamee ko ay jukko yoo xam ne nii masalan koo xam ni day wër rek di truande nga gis ko mu dugg kër sëriñ njaay ne ko ah diw de gis naa muy dugg sa kër waaye fexeel day ba ah bul siq ak moom alal yàlla mas sama ko nattoo benn waay boo xam ni dem na fële ñetti mbaar truande fa ñaan fa jabar ñu may ko mu ne moom mi ngi États-Unis mu ñëw tëdd fii parcelle am ko fa jóge ñëw gis ko waaw kii di diw ñu ne ah ñu ne mi ngi États-Unis ma leen kii fii la nekk de ñu teg ci ay temps mu dem fii benn gox bëgguma tudd gox bi bu ñu jege lool takk fa soxna daa di leen di wax ne am na magasin bu mag bu nekk fii nee na moom moom magasin bi ca dafay toog di waxtaan rek ñooñu gëm ko ci loolu may ko soxna loolee ba say batas bis nag may dox ba dugg ci sama benn kër waay ñëw fekk mu toog bi may dem moo woo borom kër gi ne ko ah sa waa ji day leen rek laa lay wax lu ngeen mën a siq dal siq lu koy bu la ñaanee jabar bu ko may jabar de yaa ngi de yaa ngi de kon loolu moom da ngay gis ne islam may na ko ci wàllu jëw bokk na ci it lii l'islam di maye ci wàllu jëw mooy koo xamee ni nii dafa siiwal ak mbonam koo xam ne ak mbonam nëbb ko loolu ku ne am na droit ci ne diw de li muy def lu bon la ngiree moytuloo ko nit ñi ndax moom làqutuwul lan la lislaam doon bañ ci jëw mooy waa ji mi ngi secret yi muy def digganteem ak boroomam ay njuumte yow nga siiwal ko waaye comme moom moo siiwal boppam su boobaa islam terewul ku mel noonu ñu siiwal mbonam googee muy siiwal bokk na la ci mujj la borom xam-xam yi wax mooy xamle xamle benn waaye ngi nenn nga diw waaw diw mooy silmaxa bi mën naa bu ko déggoon du ko neex diw kooku waaw ci tànk yi baaxul diw borom benn loxo bi diw borom nangam loolee dañ ne bu dee yow sa yéene sell na yaa ngi ci jublu rek xamle ko wax jooju mën na bu ko déggoon du ko neex waaye loolee yépp islam du la ko tappe muy juróom benn mbir yoo xam ne loolu moom du dugg ci wàllu jëw mi ngi noonu ci wàllu xadis boobu buñ jëlee suñu xadisu ñaareel xadisu ñaareel bi abi hurayra moo koy nettali ba tey radiyallahu anhu qaal qaal rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa taxaasadu ay waay bu leen iñaanante wala tanaajashu bu leen nekk di yokkante ay prix ci biir njaay wala tabaxadu bu leen nekk di merente wala tadaabaru ay waay bu leen nekk di wanente gannaaw wala yabi baadukum ala bayi baad kenn ci yéen bu mu jóg di jaay ci biir njaayu moroomam wa kunu ibadallahi ixwaana nekk leen jaami yàlla yu bokk ay doon ay doomi ndey al muslim akul muslim julit julitay mbokkam laa yazlimu du ko tooñ wala yaxzulu du ko seetaan wala yaxqiru du ko toroxal di ko suufeel attaqwa haahuna ragal yàlla day mi ngi nii wa yushiru ila sadri mu daa di joxoñ jëm ca dënnam ba salaasa marat ñetti yoon bi xasbi imriin min achar ay waaye doy na ci nit ki ci mbon an yaxqira axaahu lmuslim muy nekk di xeeb mbokkam julitam kullu lmuslimi ala lmuslimi xaram lépp julit aram na ci mbokk julitam damuhu deretam wa maaluhu ak alalam wa irduhu ak ab deram axrajahu muslim mbokk li it di benn xadis boo xam ne bu ko julit ñi jëfe woon jàmm dina ñooy dox seen diggante sunu yeneen ci sallallahu alayhi wa sallam li mu njëkk a wax mooy bu leen iñaanente bokkoon na ci bind yeen jàngoon dimanche bale passé lu jëm ci wàllu iñaan te iñaan mooy la ca gën a néew yàlla defal julit xéewal nga doon mébét xéewal googu teggeeku wala xéewal gi naqari la loolu mooy jëfi xol ba rek yàlla bëggut loolu amma nag boo jógee di sabablu pour loolu deñ loolu nag mooy xaasidin ida xasad mais ba muy jóg nag di sabablu da doon ciy waxam la da doon ciy jëfam la ngir xéewal googu teggeeku alsu salaa sallam ne bu leen ko defelente te suñu borom jox nañu solution borom bi mu ne wala tamannaw ma faddala allahu bihi baadukum ala baad bu leen nekk di mébétante li yàlla gënale ci ñeneen kii yàlla ko jox xam-xam la alal la ak pal la ak lu mu mën a doon yàlla ko ko jox tey ngaa ñaan yàlla mu jox la li gën lim li lim ko jox te nga bàyyi ko mbiram moom moo tax borom bi ne fasalullaha min fadli ñaan leen yàlla ci ngëneelam moo gën ngay ñaan pour yàlla dindi xéewalu kii la taxasaru ñaareel bi it mooy bu leen defante najish najish mooy loolu bari na ci marché yi arab yeeg nit ñi ñuul yi nga gis nit ñi di jaay yow nga ñëw fay prix gaa yi waxaale nga ñëw fay prix bu fort jubluwu ci jënd mais pour influencer ñi bëgg a jënd ngir ñoom it ñu fay ay prix loolee da ngay gis ne ah ci bakkaar yi gënañ ci bàyyi sallam doon tere la bokk na ci it lam doxoon mooy nekk di meronte yonent bi alei salaam nee na jullit mere mbokkum jullitam loole ci jëf yi warul passé ñetti fan la ca xol yow moom mbiri yàlla la waaye ci jëf yi moom wur leen passé ñetti fan ci nekku leen di nuyonte la tabaaxadu bu leen wanente gannaaw kii dagg kii kii dagg kii ku nekk dagg sa morom wala mooy tadaabur gannaaw ba it boo yëgee sa mbokk julit di jaay bul ñëw di jaay ci biir njaayam loolu islam da koo tere nga dégg benn waay ñëw di jaay nga woo ko ne ko waa li nga bëgg a jënd am naa lu ko gën a yomb mi ngi noonu daal di koy proposer loolu loolee mbokk dafa xaraam ci loolu it la ñu gis noonu it la xaraamee ci nit kiy labat soxna nga ñëw di labat ci biir labatam yonent bi alayhi salaam daal di ñuy tënkal benn kàddu mu ne kunu ibadallah ixwaana kunu ibadallah mooy nekk leen jaami yàlla nekk jaami yàlla mooy ñun ñëpp ñu xam ne ay jaam lañu moo ko jaam mooy ki manul sañul amul xam ne jaamu yàlla la lu nekk ci yow yàlla ko ci def waaye nekk leen ixwaan ngeen doon ay doomi ndey ca mooy kii ab njaago la ci chinois la maadaama yéen a bokk lislaam doon leen ay doomi ndey ndax julit ñi benn lañu ñoom ñëpp ay jaam lañu rasul sallallahu alayhi wasallam daana cee teg ne julit julit mooy mbokkam ki nga bokkal ndey ak baay man ngeen bokk benn biir sax nekk ay cheikh moom mu wëlbatu ko nekkul ci diine ah américain ba jóge fële di wax la ilaha illallah muhammadu rasulullah kooku mooy sa mbokk julit al muslim aqul muslim rasul sallallahu alayhi wasallam teg ci ne julit du tooñ mbokk julitam la yuslimu mbokk jullit du tooñ mbokk julitam jullitit du seetaan mbokk julitam la yaxzuru yonente bi alayhi salaam doon wax naan dimbilil sa mbokk julit bu tooñee dimbili ko buñ ko tooñee saxaaba yi na ko waaw buñ ko tooñee ñu ñëw dimbili ko loolu moom comprendre nañ ko mais bu dee moo tooñ ñu ngi koy dimbili mu ne téye leen ci loxoom nga ne ko diw ay li yéwén yaa tooñ delloo la àqu jàmbur waaye julit du seetaan mbokk julitam heure buñ ko tooñee dana taxaw ànd ak moom ba àqam ñu delloo ko ko laa yaxzuru gannaaw bi yonente bi alayhi salatu wasalaam ne julit du xeeb mbokk julitam julit du xeeb mbokk julitam e yéen sunu borom subhanahu wa taala dane inna akramakum indallahi atqakum ki gën ci nit ñi mooy ki gën a ragal yàlla est ce que doomu aadama man ngaa jàpp ne man maa ëpp kii ragal yàlla déedéet lenn ci borom xam-xam yi lu ñu daan wax su ma xamoon ne yàlla nangul na ma benn tuyaaba keroog doon naa mi bët yàlla faat ma ndax suñ borom ne ne innama yataqabbalu llahu min almuttaqin yàlla ngi nangul ñi ragal yàlla mais est ce que yow yaa ngi bokk ci ñi ragal yàlla gannaaw ba même bu dee d'accord ci ñi ragal yàlla nga bokk mais est ce que jàpp nga ne yaa gën a ragal baykat bi wala sàmmkat bi wala polonais bi wala américain bi ndax yaa xam nga ne yaa ko gën a ragal yàlla kon xeeb sa mbokk julit loolee julit du ko def donte ne nag cheytaane day indi ay bunt la ca gën a siiw mooy buntu deret man yax bu rëy laa bokk moom yax bu nàngam la bokk man naar la moom ku ñuul la man nii la moom nay la mbokk loolu mi ngi jóge ci cheytaan képp koy xeeb nit ngir cosaanam yaag cheytaane bokk gis-gis bu dee ci wàllu alal alal ak dénkaane la rek ni nga noonu ñi am tey mën nañ ñàkk ëllëg ñi ñàkk tey mën nañ am ëllëg ila axiri kon julit du xeeb mbokk julitam arasul salaa sallam ne taqwa mi ngi nii ci biir xol yi la nekk ab taqwa hahuna mu joxoñ ci biir xolam donte ne ne am nañu koy lay naan waaw ragal yàlla ci xol lay nekk waaye mbokk ragal yàlla bu nekk ci xol feeñ ci jëmm ragal yàlla heure bu nekkee ci xol dana feeñ ci jëf ji feeñ ci jëmm bi la nga xam ne kay moodul nekk mooy ndax ku feeñal jëf rek ragal na yàlla dañ naan déedéet nit mën naa feeñal ci kaw ak ragal yàlla fekk ragalul yàlla ci biir xolam waaye ak ragal yàlla comme sax sa biir xol fokk dana feeñ ci say jëf loolu moom xaw ma ndax comprendre ngeen li ma wax waaw tubaab tubaab bi dañ naan l'habit ne fait pas le moine mooy sol yére ak labbe rek taxul nga nekk labbe waaye nag la lu ñu te la bi permet de distinguer le moine mooy doomu aadama bi pour ñu xam ne kii kat dafa nekk ab nitu diine fokk mu sol yére bi looloo tax ba kenn wurul laye ne ragal yàlla ci xol lay nekk nit ki di njaaloo nit ki di sàgg ni julleem nit ki dafa la wax away non ragal yàlla ci biir xol lay nekk déedéet ragal yàlla boo saxee ci xol feeñ ci ay jëf problème bi nag mooy nit ki ay jëfam mën naa feeñal ragal yàlla fekk nekkul ci biir xolam a taqwa haahuna ragal yàlla ci biir xol lay nekk a rasul sallallahu alayhi wasallam daal cee teg ne dana doy ci nit ki ci mbon nga xeet sa mbokk julit nee na nit ki bul njaaloo bul rey nit bul naan sàngara waaye doy na rek nga nekk nit ko bon mooy nga koo xam ne dafa xeeb mbokk julitam mi ngi noonu doy na rek nit ci mbon nga xeeb sa mbokk julit loolee mbokk kon ci mbir moo xam ni ku nekk si ñun da ko war a bàyyi xel rasul sallallahu alayhi wasallam nag tëjee ko ci ni lépp lu julit moom araam na ci julit mu jalgi jalgati ko la ca jiitu moom mooy deretam mbokk julit du tuur deretu mbokk julit mi ngi noonu du ko tuur du def sababu koy tuur na doon da koo dóoram da koo pesam da koo lum mën a doon lépp luy derub julit ci lu mën a koo gaañ aram na ci julit ci loolu ñaareel bi mooy la nga xam ne nii mooy alalam jullit amul droit di lekk dërëm ci alalu mbokk julitam luudul ci teeyu bakkanam la ca mujj moom mooy ab deram jullit du yàq deru mbokk julitam ca loolu mooy hadis bi njëkk a jàng bokk na ci loolu alxiiba ca la bokk annamima ca la bokk mi rambaaj asabbu ca la bokk mooy nekk di ko saaga alhamz allamz lépp loo xam ne da nga koy def muy yàq sa deru mbokk julit xamal ne yonent bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na julit moom bu ngëmam wér du def ak loolu mukk ka nga xam ne mooy mbokk julitam yal na yàlla jàppale ñu ci jukko yooyu
وعن صحبة بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأزواج أخرجه الترمذي وصححه الحاكم واللفظ له وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمال أخاك ولا تنازعه ولا تعده موعدا فتخلفه أخرجه الترمذي بسند ضعيف وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان لا تجتمعان في مؤمن البخل وسوء الخلق اخرجه الترمذي وفي سنده ضعف وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستبدان ما قال فعل البادئ ما لم يعتد المظلوم أخرجه مسلم
mbokk xalis bi ci tegee ci kay na ci li mooy وعن قطبة ابن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول اللهم جنبني منكرات الاخلاق اي يالا يال نك ما سوريل لاغا خن موي لا ñaaw ca jukka ya lañu sip ca jukka ya wal a'mal ak la nga xamne dafa bon ñu sip ko ca jëf ya wal ahwa ak la nga xamne da bon ñu sip ko ca banex ya wal adwa ak la nga xamne da bon ñu sip ko ca feebar ya أخرجه الترمذي وصححه الحاكم واللفظ له mbokk jukko nañu xam ni suñu borom yàlla mooy nattoo doomu aadama yi jukko yi ñu jukko woo donte ne natt bu ñu nattu dafay ànd ak sabab looloo tax bokk na ci sabab ngir yegg ci jukko yu baax yi ngay góor góorlu boole kooku ñaan بكون شنيان ينتي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدني إلى أحسن الأخلاق والأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت وقني سيئها لا يقي سيئها إلا أنت yàlla yàlla mu yóbbu ci jukk yi gën a kawe ak jëf yi gën a kawe kenn du ci yóbbu ko dul yow ca nga musal ma yecca bon kenn du ci mucc ko dul yow hadis bi it day wax ne yàlla yàlla nag ma soril bépp jukko bu bon bépp jukkoo bu nit ñi sip yàlla yàlla nag ma ko soril ca loolu julit da ko war di ñaan ñaan gi dafa tënk bépp jukko bu bon donte ne nañ ci bi daana détaillé allahuma inni a'udhu bika min al bukhlu yàlla yàlla nag musal lu mel ne ay nay yàlla nag musal ci iñaan yàlla nag musal ci kaza wa kaza loolu julit da ko war a moytu waaye jëf yi tamit mbokk jëf ju bon julit dafa war a ñaan yàlla subhanahu wa taala a musal ko ci yàlla rek mooy musle ci jëf ju bon looloo tax bokkoon na ci ay ñaanam sallallahu alayhi wa sallam yàlla yàlla nag ñu may ajjana ak lu ñu koy jegeel ci ay wax ak i jëf yàlla nañ ñu soril sawara ak lu ñu ko mën a jegeel ci wax ak i jëf gannaaw ba ay bànneex mi ngi noonu al ahwa ca doomu aadama na nga xam ne sa bakkan bi la ëpp lam li diri jëme ca mooy loo xam ne lu lay lor la moo tax suñu borom jalla wa ala ne fa amma man qaafa maqaama rabbihi wa naha nafsa anil hawa la nga xam ne mooy al bànneex yay tax ba ma sori sa diine ji yàlla yàlla na nga musal ci loolu bokk na la ci gën a garaaw nag bànneex bu la yóbbu ci shirk da nga noonu ca loolu lu tasaaroo la ci doomu aadama yi tey mooy ngir milieu bi nga nekk nga ñu kontaan ci yow wallahi nit ñi da ngay gis lu ne ngay dégg yàggul dara àjjuma ji paase rek maa ngi toog koo xam ne ab kilifa la ay nit ñu bëri ñëw jóge fële di nuyoo kilifa la mu yor téléphone am am kuy ñëw di wax ak moom mu ne ko ah kay ah dañ ko def kay bu soobee suñ jiw koy dañ ko def bu soobee suñ jiw dañ ko def te suñ jiw boobee mën na am bàyyam sax gis ko mbokk loolu ay njuumte la yoo xam ne tey nit ñi dañ koy kontaane leen te seen biir loolu mooy ëhwa bi nga xam ne bu gën a garaaw la bokk muy wàcc nag di wàcc ba fu mu yem gannaaw ba mbokk al adwa muy feebar feebar kenn mënul mucc ci feebar yàlla bind doomu aadama fokk nga feebar ibrahima alayhi salam dana wax naan isa maritu fa wa yashfin julit feebar dafa baax ci moom feebar day far say bakkaar day yëkkati say daraja waaye nag daf ñoom feebar yu grave yi loolu moom julit da ko war a muslu yu mel ne cancer ya yu mel ne gaana ya yu mel ne ay feebar yi nga xam ne nii day tax nit ñi di la daw ak yu demee noonu loolu moom jullit dafa war a ñaan yàlla subhanahu wa taala musal ko ci feebar yooyee donte ni yàlla mën na ko teg jullit bu baax waaye yow daal del ñaan yàlla musal la ci ñu ngi noonu comme naka yonente bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam doon musloo bu dee xadis ibnu abbas radiallahu anhu qaal قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تماري أخاك بل نك دي ورنتك sa frère sa doomu ndey ci diine wala tumazihu bul nekk di kafante ak moom wala taiduhu mawidan fa tuxlifa bu ko nekk di ko dig dig boobee nga doon di ko wuute axrajahu tirmidi bi sanadin fihi daaf tirmidi solo na ko mu ne sukkandukaay bi nekkul lu wér almuhim bu dee li ci kaw moom lañ xam ne mbokk lislaam bëggul werante islam bëggul werante donte ne nag am nañu yàlla nattoo dañoo bëgg werante werante ci politique werante ci lu nekk lu way wax rek ñu weddi ah non non nangam ah non non nangam mbokk julit di werante ak mbokk julit boo yëgee ne def la njum te mën ngaa wax mais boo waxee mu insisté bàyyi bu nekk di werante mi ngi noonu bu nekk di werante yonente bi salallahu alayhi wa sallam bi mu waxee loolu it mu ne na ngeen moytu kaf kaf ya la ca l'islam di tere mooy kaf boo xam ne day yegg ci suufeel doomu aadama bi am na ñoo xam ne seeni kaf dafay suufeel kañuy kafal loolu islam nanguwut loolu amma bu dee kaf yi bégloo lu mel ne ni ñuy kalante nii ñu yem ci yu demee noonu loolu da ngay gis ne yonent bi alayhi salatu wasalaam daana kaf ak sahaaba yi waaye daawul wax lu dul dëgg daawul wax lu dul dëgg benn màgget jóge na fële di sukkootu ko ak yatam bi mu ñëwee mu ne ko ayum yàlla yónni ñaanal ma benn màgget bu jigéen ñaanal ma ma dugg àjjana yonent bi alayhi salaam ne ko àjjana màgget du fa dugg rek ndeysaan mu commencé di jooy yonent bi ne ko déedéet boo demee ba war a dugg àjjana yàlla da lay defaraat nga nekk jànq bu dëgër soxna si doog a kontaan doog a ree kon kaf yi mel noonu yonent bi daana ko kaf mais nag léegi-léeg nga gis ñuy kaf kaf ya dem ba exagéré bay ah waaw waaw mi ngi noonu xaaxar loolu islam du nangu loolu léegi la ñetti nga wax ko ci biir nit ñi loo xam ne vraiment da koy déranger kaf yu mel noonu l'islam bëgg ko amaa la ci mujjoon it mooy bul dig mukk sa mbokk julit di ko wor ca it loolu it mbir la moo xam ne ngalawaay yàgg nañ cee wax yu demee noonu lépp loo xam ne yaa ngi koy digaate fas yéene ko def ki nga dig jox ko alal ki nga dig ci wàllu liggéey ki nga dig ci wàllu lu nekk waaye heure boo digganteeg sa mbokk julit ngalwaay bu ko war yàlla nag mën naa indi lu tax dig ba munu sottiwul waaye bu mu jóge ci yow na jóge ci yàlla bu dee xadis bi ci tegee mooy xadisu abi said alxudri radiallahu anhu qaal qaal rasulullahi sal allahu alayhi wa alihi wa sallam xislataan ñaari jukkoo ngi nii day mooy ñaari mbir laa tattamiaani fi mumin duñu daje mukk ci julit bu gëm yàlla albuxlu wa suu alxuluq la nga xamee ni mooy nay ak jukko ju ñaaw donte ne trimidi solo na ko mu ne it xadis bu lompoñ la waaye ala kulli xaal mbokk julit julit moom mën na bañ a ñàkk défaut waaye yonent bi sam dina ñaari défaut ngi wala boog xadis bi loolu lay wax yàlla xam ndax yonent bee ko wax waaye daal la xadis bay wax mooy ñaari défaut ngi ju daje ci julit boole nay ba pare ñaw jukk moom kay booy nay nayal sa xaalis rek waaye nit ñi moom nga jëflante ñoom jukko ju rafet wala boog booy jëfalanteeg nit ñi ci jukko ju ñaaw it sa poos moom koo dajal jox ko ci dara ndax it gaa yi am na ci ñoo xam ne loo leen mën a wax it tant que yàgg leen di jox moom déggatuñ loo leen di wax am déet waaye nag boo la yow doo joxe dara bu pare di xas nit ñi mu ne ñaari jukko yi moom du daje ci julit wallahu a'lam hadis bi ñu mujj jël mooy hadis abi hurayra radiyallahu anhu qaal qaal rasulullah sallallahu alayhi wasallam al mustaban ñaar ñi nga xam ne dañuy taxaw di saagante ما قال لب لو خمني واخ نانكو فعلى البادي فعلى فعلى البادي دنج كوي فعلى البادي دنج كوي بندل كاغا خمني موم مو جيك كوماسي واخ جا ما لم يعتدي المظلوم في جيغول داي كو تون ديغي نون جانغون نان تي ديماش بلي باسي الرسول صلى الله عليه وسلم ني يالنا يالنا رب كي ساغا اي واجورم صحابه نكو اه nit dana saaga waa juróom mu ne waaw da ngay dajeeg nit saaga baayam mu saaga sa baay nga saaga ndeyam mu saaga sa ndey alors loolu moom la yonent bi di leeral fii it nee na ñaar ñiy saagante lépp lu ñu wax que jëkk saaga lañ koy bindal fii it ka nga xamee ni nii dañ koo jëkk saaga jéggiwul dayoo masalan ñëw na saaga sa ndey saagaal ndeyam loolee yem foofu waaye bul boole ndeyam ak baayam ay bul jéggi dayoo ci loolu donte ne nag la gënoon moom mooy nit ki bu la saaga nga bañ koo delloo saaga ba loolu mooy la gënoon am nga droit delloo ko ko waaye la gënoon nga bañ ko ko delloo am na benn riwaaya bu ñuy solo yàlla gën a xam ndax wér nam wérul yeneen ci alayhi salaam toog nag abou bakar benn waay jóge fële yow abou bakar nangam nangam du ne mu yàq ko ko abou bakar noppi ba mujj rek abubakar jóg moom it delloo ko saaga yi mi saaga yonent bi jóg mu ne ko waaw yow yaa ngi dégg ci dima saaga yow waxoo ci dara may fayu yow ngay dem mu ne waaw ndax bi mi bi ngi lay nekk di la saaga yàlla ngi sant benn malaaka mi ngi koy delloo wax ji mu lay wax yépp am naa bi nga commencé di fayu cheytaan dañoo taxaw moo tax ma dem bàyyi fa cheytaan waaye almuhim li ñu bëgg a wax ci loolu mooy nit ki ñëw tooñ la saaga la saaga ba nga delloo amoo ca benn bakkaar mi ngi mel ne rek ki nga xam ne tooñoo ko mu ñëw fekk nga taxaw mu tëgg la mpes soo wëlbati koo tëgg ko mpes amoo ca benn bakkaar lépp moom ma nga xam ne moo jëkk a tooñ moom mooy ka nga xam ne moo koy gàddu fi yéeg nag yow mi ñu tooñ ñekkoo koo xam ne da ngay jéggi dayoo mi ngi noonu
وعن ابي سلمه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضار مسلما ضره الله ومن شاق مسلما شاق الله عليه اخرجه ابو داود والترمذي وحسنه وعن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يبغض الفاحش البذيء أخرجه الترمذي وصححه وله من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ورفعه ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء وحسنه وصححه الحاكم ورجح الدار قطني وقفه وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا أخرجه البخاري وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة فتات متفق عليه وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كف غضبه كف الله عنه عذابه أخرجه الطبراني في الأوسط وله شاهد من حديث ابن عمر عند ابن أبي الدنيا
kon mbokk yi xadis yi ci tegee bi ci jiitu mooy na abi sirma radiallahu anhu qaal قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ضار مسلما ضاره الله كيف كلور جلد يلا دار كلور من شاق مسلما شاق الله عليه كيف كو خمنا جفل نتشكو جلد يلا دنا جفل تشكوم أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه bako hadis bi lim ñuy jangal rek moy la suñu borom di wax naan man amila salihan fali nafsi wa man asaa fa alayha loo def ci lu baax sa bopp ngay defal loo def ci lu bon sa kaw la jëm jullit na xam ne lu baax lu mu jëm jëmale ci mbokk jullitam na xam ne boppam rek lay tàllal lay defaral lu baax ndax boo ko defalee benn yàlla fay la fukk waaye contraire ba noonu la demee sa mbokk jullit nga jël di ko lor fokk yàlla lor la sa mbokk julit nga war koo yombalal nga jafel ko ak jafe-jafe xatal ko ak xatal fokk yàlla subhanahu wa taala xatal la loolu it kon ku nekk ci ñun rek bàyyi ci xel man amila salihan fa li nafsi wa man asaa fa alayha الرسول صلى الله عليه وسلم تلي أبي درداء نتلي تكشني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض الفاحش البذيء أخرجه الترمذي وصححه mu ne yonent bi salallahu alayhi wa sallam day dafay bañ nit koo xam ne dafa nekk alfaxish albazir koo xam ne nii lu ñaaw lu ko neex lay wax gannaaw ba waxi ñàkki teggin yu ko neex lay wax alfaxish mooy kay nekk di wax yu ñaaw ya saaga yaag daggasante yeeg dóoral nit ñeeg amal albazia bokk na ci nit ñi ñàkk teggin di maye di wax ci wàllu sëy di wax ci wàllu njaaloo di wax ci wàllu suufil ay nit suñu borom mu ne ñu mel ku mel noonu yàlla subhanahu wa taala da ko bañ te it da ko bañ le bépp julit walahu min hadis ibn masud radiallahu anhu rafa laysa almumin bittaan am naa beneen hadis boo xam ne masud moo ko solo yonente bi alei salaam daf naan jullit du nekk mukk koo xam ne dafay nekk di jam nit ñi attaan mooy koo xam ne day jam nit ñi ci seen cosaan wala di leen jam ci seeni doxalin mi ngi noonu wala la aan julit du nekk di koy rëbb ay mbokk julitam wala al fahish julit du nekk koo xam ne day wax ay ñaawteef wala al bazii julit du nekk koo xam ne day wax wax yi ñàkk teggin wa xasanahu wa saxaxa raj daru xutni kon ñooñu day dëgëral xadis bi ñu jot a jàng bu dee xadisu ci teg mooy xadisu aïcha radiallahu anha qalat qala rasul sallallahu alayhi wasallam la tasubbu al amwat fa innahum qad afdu ila ma qaddamu yeneen ci bari sam dana waa nit ki bu dee ci yéen jarul ngeen nekk nag di ko rëbb wala di ko saaga bu dee jàpp nga ne moom lu bon la nekke woon xamal ne lu bon loolu ma ngay dund conséquence am léegi wax ji ngay wax amatul sens ki dee moom nañ ko bàyyi te am na yeneen xadis boo xam yeneen bi danaan da caa dolli ne ndax da ngeen di lor ñiy dund xam ngeen nit ki bàyyam dee ngay wax ci moom lu bon wala doomam dee ngay wax ci moom lu bon la chaque ne loolu da koy naqari ca ka nga xam ne dafa dee moom du ko dégg kon ci xis ba dee moom nañ seet lu baax ñu waxal ko ko amma lu bon la mu doon def moom nañ ko bàyyi ak boromam jalla wa ala حديث حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل الجنة قطات يونتي با عليه السلام دنا داي دكات دكات du dugg aljanna kan mooy dokkat mooy dokkatu mbokk dokkatu xarit dokkatu nangam te ña ca jiitu mooy rambaaj rambaaj te mooy dégg nit ki wax benn wax nga toxal ko ca kam ka wax seen diggante yàqu ca lépp loo xam ne nit ki sabablu na ca ba ab siy tas ca bàyyi frère teqalikoo ca bàyyi dëkkandoo ñaawoo ca bàyyi collègue ilaaxiri mooy képp koo xam ne day dox ci diggante nit ñi di yàq ku mel noonee da ngay gis ne ci bàkkaar yi gën a garaaw la bokk xam leen ne bokk na bàkkaar yi gën a garaaw bépp bàkkaar ba yonente bi alei salaam wax ba bari ne borom du dugg sawar du dugg aljanna wala bépp bu mu wax ne borom day dem sawara ca day dem sawara moo gën a woyof du dugg aljanna ndax nit dana dem sawara ba pare dem aljanna àddina moom ku fa dugal moom sawara ngay sax xaalidina fiha abada looloo tax ba nga la way julit ab diggante kay li nga waroon mooy diggante bu yàqu nga cay dox guddeeg bëccëg ngir mu booloowaat waaye fekk diggante bu baax nga wax ca ba mu yàqu loolee moom ci bàkkaar yi gën a garaaw ci bàkkaar yi la bokk moo tax yonente bi alei salaam ni ki mel nii day du dugg aljanna donte ne charte ba waxoon nañ leen ko ci dimanche yi passé mooy tuubu ko yàlla jéggalu ko ko te it amul yeneen jëf yoo xam ne nii ëpp na doole jëfam joojee ba man koo baare ba tax mu yeyoo aljanna loolu la ñuy wax ci loolee mi ngi noonu amma xadis bi mujj a jël mooy xadisu anas radiallahu anhu qaal qaal rasulullah sallallahu alayhi wasallam man kaffa gadabahu kaffa allahu anhu azaba akhrajahu tabarani fi al-awsat wa lahu shahid min hadith ibn umar inda abi abi dunya الرسول صلى الله عليه وسلم day wax ne ki nga xam ne dafa fekk meram yàlla dana ko fegal mbugoolam yowm alqiyama ca boobu borom bi subhanahu wa taala moom lay wax ñi mu waajal àjjana bokk na ca wal kaasimin al xays mooy ñi nga xam ne dañuy nëbb seen mer te loolu it mbokk julit nañu xam ne mooy mer bi aju ci say aq mer bi aju ci tooñ guñ la tooñ nga mënoon koo manifester waaye wann sa mer ca yàlla tax loolee da ngay gis ni suñu yonente alayhi salatu wasalaam ne dana la fegal mbugulum yàlla yowmal qiyaama amma nag yonente bi alayhi salaam noonu la meloon musul fayu ci lu ko nit ma sa wax musul fayu ci lu ko nit ma sa def bam des na ku jalgati luwaay yàlla yi bu dee am na nag ku jalgati luwaay yàlla yi kenn mënul woon dox digganteem ak meram loolee di ñaari aq yu ñu war a teqale séddale ko ñu ci njaboot gi ak képp koo yilif de ràññee say aq ak aqu yàlla lépp tooñ bu ñu la tooñ soxna la doom la kaza wa kaza bu jëm ci yow loolee seetal noo koy mën a defee ci baale ko ci nëbb ko amma nag bu ñuy jalgate aq borom bi loolee mbokk julit moomoo ko ba cay jéggalee mi ngi noonu mbokk yi lenn la ci ay jukko yoo xam ne nii islaam ñaawlu na ko képp ku ko moytu da nga baax yal na yàlla dox suñu digganteeg jukko yu ñaaw yooyu yépp te yóbbu ñuy jukko yu gën a kawe te boole ñu ñuy texe àdduna ak alaxira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain